ñaari combat yooyu yëpp Modou Lo Ama day am Modou Lo Boy Niang day am léegi nag Modou bi parce que xamuñu waaw parce xamuñu lu si nekk CNG moo ñu war a jox lu leer nee nañ Modou Lo indi na certificat de guérison léegi bu indee certificat de moom il est apte pour lutter bi organisé woon combat am moom fan la nekk. analyse Nicolas yi c'est ça le parce que ñoom ñaar ku ci nekk jot nga avance mais ay mbër yu jot avance c'est pour ñu bëree loolu mooy sama problème bu fekkente ne Modou avance bi mu jot ci Luc Nicolas yi empêché wu ko mu am combat war na mën a bëreeg Boy parce que c'est un lutteur Ama Baldé mi dafa jël Gris Bordeaux ñëw ba combat bi jege mu blessé kon kooku mënatul bëri Boy Niang moo fi nekk. Ama Balde bu ñu paree ñu bëri bu dee demeewul noonu bu dee dañoo ñëw ci loo Lo Ama Balde mu am bu combat boobu taxawee ba ñu bëree ba pare en ko cas Modou loo day ñëw bëri si waat te bu ñëwee di bëri si waat Modou Lo amatul adversaire ci kaw parce que ñi kaw ñëpp bëri na ak ñoom ñi bëri na ak ñoom deux fois ñi bëri naa ak ñoom trois fois kon bu ñëpp bu ñu fekkee ne day bëri si waat day ñëw bëri si rek ak booy yi waaw moo tax ma ne la ñoom ñaar ñëpp lay bëri bu indee division à Pikine ma xam ne waa Pikine dëgguwuñu Tyson bëri na ak Tafa Gueye Baboy bëri na ak Tafa Gueye te dara ñaawul Balla Beye bëri na ak Tafa Gueye te dara ñaawul Pikine nañu réglé Pikine nañu bàyyi seen wax yi ñuy wax ay waxu Pikine lii day yàq Pikine dara yàqul Pikine Pikine bu yàqoo ci ñoom ñii fi nekk la mu jee puso bi mu réer ci seen loxo moo leen nar dal am na loxoom dafa ñaaw am na wax yu ñaaw depuis trois ans quatre ans ñu naan Pikine lii Pikine lii booy ñaa Ama Baldé bokk adversaire daa war a yàq Pikine kon day wane ne ñoom ñaar bëggante wuñ du dëgg wala seen staff bëggante wuñ fii yàgg na fee am ay mbër ak Balla Gaye ñoo bokk ay adversaire est-ce que xuloo nañ nañ bàyyi wax boobu nañ génnee wax boobu ci seen xel Pikine nañ bokk nday bokk bàyyi dañu bàyyi waxu Ama waxu Boy Niang nañ jéem a fexe seen mbir yi avancé ñoom ñu avancé loolu moo ëpp intérêt Balla Gaye daal la ci daal Balla Gaye mais respect xaaral xaaral xaaral si Balla Gaye numéro 2 am na ci lamb mi ngi fi toujours rajo Balla na dem faju bu yaramam amee feebar na dem faj ko mu ñëw mu entraîné Balla Gaye doo mbër la doomi mbër la bari na supporter nit ñi bëgg na ko te na li muy def kon amatul loo xamante ne nii Balla Gaye moom lay prouvé ci ci làmb na dem entraîné bu demee entraîné ñëw gaa yaa koy xaar c'est un champion moom ama seen làmb la mais su ma doon Balla damay bàyyi ba faju ba wér ba pare soo koo bëre damay fajuti ba wér ba defar ba pare ba pare soo ko ñëw bëre ko masquer déedéet d' accord ma su ma moom dinaa dem fajuti ba wér ama seen c'est un sportif moom du bañ loolu du bañ Balla Gaye dem fajuti ba àpp soo ko bëre moom ndax bëggul daan Balla Gaye ñu naan Balla Gaye wérul Balla Gaye tamit bëggul moo ko masquer ñu bëre ba pare am ci defet wala lu si mën a am ñu Gaye daa feebar kon Balla su ma moom dinaa di fajuti ba taxaw ñu wax Sénégal yëpp pare naa ma soog a ñëw bëri Boy Niang fépp Boy Niang buntu boo ci làmb mi ngi fa taxaw buntu champion boo tëddi ci làmb Boy Niang mi ngi fa taxaw moo tax ñu ngi koy nuyu baax baax di ko bégee waaw di ko wax na si na jàpp rek baax incha allah làmb ju rëy ma si